Bismillah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 ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu mboolem képp koo xamante ni yaa ngi teewlu rek fii ci télé bii di Madiyana TV ci émission bii di Xuratul Hayni ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare bu baax a baax jiite nuyoo beeg ziare bi xalifa général de Mouride Serigne Mountakha Bachir du ko ñaanal mu yàgg fi te wér li mu fas yéene liggéeyal Seexul Xadim Sëriñ Tuba yàlla suñ borom defe ko mu amee ko nu mu ko bëggee naka noonu itam li ñu koy ñaanal Sëriñ si Ahmadou Mbàkke Sonhibou bi mi nga xamante nii moo nekk ci bopp kër Sëriñ Sonhibou du ko ñaanal moom mu yàgg fi lool te wér ak mboolem njabootu Sëriñ Sonhibou bu yëpp kon comme niñ leen ko waxee woon rek ñu ngi fii ci Madiyana TV te émission Xulatul Hayni ñu fas yéene leen indil naafileeg tay gi naafileeg tay gi rek Sëriñ Sonhibou Mbàkke radiyallahu anhu ni ku ci julli juróom maanaam guddi juróom ñeenteel ga sëriñ Sow bi Mbàkke nee na ku ci julli ñeenti rakka rakka bu ci ne fatiya ak tabbat yada ñetti yoon xulwallaahu benn yoon maanaam fatiya ak tabbat yada ñetti yoon xulwallaahu benn yoon mu ne des na ko bindal tuyaabay muñkat yépp ak santkat yépp te dana mel ni ku wàcc ab kaamil te des na ko bindal tuyaabay ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne da ko yendoo woor fanaane koo julli des na ko na digal ñaari malaaka yi ñaari malaaka yi yuy far ay bakkaaram di bindal ay tuyaaba ba bisu penc ba te yàlla dana ko te yàlla dana nangu ak julleem dana nangu ak kooram te dana ko dimbali te dana ko taxaw itam ba kenn du ko lor te dana musal ci seytaane ak njàqare itam te bu bisu pénc ba des na ko booleeg des des na ko boole ca ña nga xam ne du ñu gis lu leen di lu leen di ragalloo ba lu leen di jàqiloo te des na ko ubbil juróom-ñaar juróom-ñetti buntu àjjana yépp mu dugg ca bu ko neex te desu ko xisaab maanaam ku julli ñeenti raka raka bu ci ne fatiya tabbat yadaa ñetti yoon xulwallaahu benn yoon manam fatia kana fatia tabbat yadaa nga janko ñet yon yoon xul nga janko ben yon yoon sëriñ sooy mbàkk nee def des def ya dees na ko bindal tuyaabay yep ak sant ko te dana mel ni ya ku wàcce ak te dees bindal tuyaabay ku jaamu yalla juróom-ñaar fukki at yo xamne ne yondo ko fanane ko julli des nako ko te du dee na digal ñaari malaaka yuy far ay bàkkaaram du ko bindal ay toyaabaam ba bisu pénc ba te yàlla dana ko te yàlla dana ko te yàlla dana ko te yàlla dana ko te yàlla dana nangu ak julleem nangu ak kooram te dana ko dimbali dana ko taxaw it ba kenn du ko mën a lor te dana ko musal ci soytaane ak njàqare yépp te bisu pénc ba dees na ko boole ci ca ña nga xam ni duñ gis lu leen di ragalloo ba lu leen di jàqiloo te dees na ko ubbil juróom-ñetti bunti àjjana yépp mu dugg ca ci bu ko neex te deesu ko xisaab kon mbokk yi seen naafilig tey gaa ngi noonu mu tombeek guddig juróom-ñeenteel ga kon ñu ngi leen di jox dig dage ba ëllëg ak jàmm insha allahu taala jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala Yama.